salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum monde entier ñu leen di nuyu di leen béggee di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfiq ñu ngi nii nag géejawaay ku ne géejawaay ni wax naan nimsaat daanaka nag ñu ngi fi benn festique festival boo xamante nii suñu frère Tan Bombe moo koy def euh, daanaka nag bi mu nekk troisième édition bi donc ñu ngi leen di béggee di leen ñaanal jàmm di ko ñaan ci réew mi ci di ñaanal tamit ñi nga xamante ni ñooy ñi feebar yàlla yëkkati leen ñëw euh, tuuti waxtaan mooy artistes yu mag yi ñu ngi sama ginnaaw donc avant spectacle yi di commencer après ñu doxantu tuuti ñu nag waa moom ci biir artistes yu mag yi dama topp ma ma dem euh, gis sunu sunu frère Tan Bombe mi nga xam def ci ñun tamit jom fulla fayda muy sunu papa sunu tons sunu lépp muy nekk grand Ibou nekkoon fi nga xamante ne muy président arko bu géejawaay daanaka nag léegi mu jox ko frère am ni ko doxalal man ma dem feneen doxal feneen fi papa ñu ngi lay nuyu di la bëggee Euh, maa ngi lay fay laay nuyu sa technicien cadreur bi nga àndal di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu aussi seen teewaay ci festival bi nga xamante ni moom la ñu organisé muy festival lu Tan Bombé waaw. waaw acca bu nu la fi fekkee day doon mbégte ci ñun waaye day doon mbégte ci tamit ki nga xam ne mooy Tan Bombé mu nekk sa frère nekk sa doom nekk sa lépp daanaka nag nga jiitu ko ci mbir yi waaye nga ñëw may ko doole sax ci suba ba léegi ñu gis la fi lu waral loolu. waaw xam nga nit koo gis rek am na lu la booleeg doomu aadama Tan Bombé dafa nekk suma rek nekk suma xarit a ah, organiser lu toll ne festival international daal di may woo ne ma grand ren dama laa boole si samay parrain eh, aw ma lu ma ko jox parce que moom sama situation xam na ko xam na li may dund man xam naa ne tuddeewu ma xaalis parrainé aussi pour tur wala pour dara cër la boo xamante ni dañ ko seqoon fii ci Géejawaay ah mu ne ma am na lu gàtt-gàtt am na loo liggéey ci Géejawaay lu jar sargal wala parrainé man nag yëg naa ne dama laa war a parrainé boole naa la ci samay parrain ah, relation bi ñu yàlla boole nag ci suñu borom la parce que moom ak ay nawlem ñoo bokk nekk Géejawaay am na ñoo xamante ne peut-être waroon nañ ma ko mën a defal te ko kon moom bu ko defee dama koy sant di ko gërëm di wax ne festival bi lépp lu ma ci mën rek dinaa ko ci def parce que Abdoulaat jaral na ma ko te cër bi aussi dafa fort ci man képp kuy sama mbokk kuy sama xarit kuy sama àndandoo bi ma estaté photo bi ñëpp dañu kontaan di ma woo ne ma gis nañu parrainage bi nga xamante ni moom la tan bam bi defal donc dañuy sant yàlla di ko ñaanal moom it li nga xamante ni moom la organisé muy festival bi yàlla defal ko ci réussite boo xam ne 1000 pour cent lay doon waxuma cent mais 1000 pour cent lay doon. sëñ bi ñu ngi lay nuyu Tane Bombe di la ñaanal jàmm ak tawféex. maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen ñaanal jàmm yéen aussi ak tawféex ak ñi may seetaan maa ngi leen di jàmm di leen ñaanal tawféex. waaw ah, dëgg la ñu ngi lay bëggee eh, lu waral lii lii dafa dafa dafa nekk lu lu lu lu lu neex nekk loo xamante ne tamit day yëkkati fii di yëmbal géejawaay eh, tey nga indi ko fii nga xamante ni mooy géejawaay lan moo waral initiative bi. waaw initiative bi mooy dañoo nekk ay artistes comédiens aussi nekk ay acteur culturel nekk promoteur culturel aussi di yëngu ci wàllu théâtre depuis des années presque lu ëpp vingt ans ñu nekk ci di yëngu euh, dem ci yeneen i réew aussi di ca yëngu ñu ñuy invité ay festival partout dans le monde ñuy dem kon tey yoon la euh, ñu nit ñu organiser festival international de théâtre de Guédiawaye Euh, daal di invité nag ña ñu daan invité ñu ñëw wuy si ñu. waaw ba tax na maa ngi béggee ñëpp di sant artistes yëpp. di sant population de Guédiawaye di sant ñëpp ñëpp ñëpp parce que euh, lii ce n'est pas du tout évident nit mën nga louer chaise louer podium. luye sono luye lépp mais nit kenn mënu koo luye waaw kon wax dëgg fa yàlla maa ngi sant artistes yëpp di sant aussi population de Guédiawaye di sant surtout les autorités de Guédiawaye parce que ku ci ñëwul it woote nga wala yaa ngi yónnee wala yaa ngi wax euh, te loolu rek appui la mais ma ci baral nag ah koo xamante ni euh, li mu def ci festival bi am na solo te daf ma jam daf muy muy kan muy monsieur Racine Talla maire de Wakhinane Nimzatt directeur RTS dafa jël festival bi rek ak waa mairie bi agent mairie bi yëpp muy adjoint maire rek muy ñëpp ñu jël festival bi rek jël ko amee téye ko daal ne ñoom festival bi ñoom ñoo ko moom comme que ñun nag ay doomu géejawaay lan dëgg la njaareem limaamu laay laa njëkk a dëkk waaye li ma ëpp ci sama jeunesse maa ngi ko defee Wakhinane Nimzatt waaw ba tax na nag euh, ñu teewal Wakhinane bi Nimzatt fu nekk parce que je me bi may njëkk a def théâtre première répétition bi ma njëkk a def maa ngi ko defee foyer de jeunes CPAF bu Wakhinane Nimzatt kon yoon la ñu defee ko fii ci Wakhinane Nimzatt xëy na Géejawaay yaatu na nag mënuñoo dem ci commune yëpp mais bu ñu waxee festival international de Guédiawaye rek c'est pour la ville de Guédiawaye mais nag c'est ici à Wakhinane Nimzatt waaw waaye nag ndokk sant yàlla ba nga xamante ni la maire de Wakhinane Nimzatt reconnaître loolu xam ko xam ni festival bi ci buntu mairie ci pavage bi lay amee ah, ñu def estrade bu toll nii indi artistes yu tol nii jóge ci ay réew ñëw indi fi ay spectacle yu am solo waa son et lumière ak waa Sorano gunge ñu ci lu mel nii ndax podium bii ngay gis boo amul 2 millions par jour doo ko monter. wallaay dëgg la 3 millions boo xoolee. yenn musiciens yi koy def yi koy monter sax dañoo am doole moo tax ñu di ko monter waaye nag loolu c'est à grace di ministère de la culture de la ministère de la culture ñu koy wax docteur Aline Sow waaw ministère de la culture et Euh, ministère de la culture et du patrimoine historique ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu def ci appui bu am doole ak directrice des arts Khoudia Diagne macha allah ñu jàppale ñu bu baax a baax baax pour festival bi jëm kanam ñu ngi si troisième édition. et que bëgg nañ dem ba centième édition Tan Bombé nekk fii wala mu jóge fi gone yi yeggale ko parce que li ñu ci ñor mooy pour développer la culture sénégalaise pour développer la culture de la banlieue surtout à Guédiawaye et que bu ñu nekkee acteur culturel ñun ñoo war defar culture culture bi ñun ñoo utuñu ci xaalis utuñu dara parce que kenn ku nekk loo yoree sa kër yow yaa koy liggéey kenn ku nekk loo munti am sa àdduna yow yaa koy liggéey mais lii c'est pour les jeunes talents de la jeunes et les jeunes talents des, des autres pays aussi parce que tamit chance la jeunes yi joué ci scène bu mel nii chance la ñu joué ci festival international yombul euh, mettina na parce que ministre bi mu gisee projet bi li ma njëkk wax mooy tan lii yow acteur culturel waroo ko mën a organiser parce que budget bi festival bi kon état moo ko war di organiser kon wax dëgg fa yàlla bëgg nañ beneen yoon ñu dem ci ay yeneen stratégie ba nga xamante ni festival bi dina gën a mucc ayib ministre bi ma koy gërëm loolu doyul mu ne le 13 mai samedi jour cérémonie officielle bi moom moo koy présider ànd ceeg Racine Talla ak Khafor Touré ak Modou Mamoun Ngom Ahmed Aïdara toutes les autorités de Guédiawaye waaw maire Gounass maire Ndiarème Limamou Laye ak maire Sam Notaire ñëpp rek ñu leen di invité ci invité ci euh, cérémonie officielle bi ak la marraine du festival muy Néné Fatoumata Tall moom it moo géré promise ñu koy invité bu baax a baax ci journée bi di 13 mai nga xam ni samedi bi ci guddi dañuy def show bu rëy fii ci Géejawaay artiste boo gëj a gis ci àdduna artiste boo bëgg a gis boo ñëwee samedi ci jour cérémonie officielle bi di ko fekk. ayca ñu lay béggee di la ñaanal jàmm mais nag dégg naa for ci wéwu bay ñu ne da ngay sargal dégg naa di nga sargal nag ay ndaanaan ñi nga xamante ni daanaka ci seen keppaar nga nekkoon dégg naa dinga nga leen sargal euh, muy kan ak kan ki nga xamante ni ñoom ngay sargal ci bis bi daanaka nag boo xoolee temps bi sax bariwut nag mais faaw ñu xoj la tuuti. waaw faaw ñu jëb leen lim tuuti rek boo xoolee tey dafa am fu ma jaar. am ñoo xam ni dafa am fu ma jaar ak ñoom. képp ku ma sargal rek am na loo xamante ni jaar naa fa ak yow ci lu baax ci teraanga ci liggéey ma ci jiital nag papa Demba Lam papa Demba Ndiaye Lam bi nga xamante ni lu ëpp ci sama enfance lu ëpp ci sama carrière dafa def ci man lu am solo muy fulla jom dëggu mën a liggéey te loolu daf koo def ci man parce que su may wax ci moom damay am ay chair de parce que li mu def ci man dafa rëy nee naa loolu mu def ci man c'est la base d'une personne waxuma un comédien mais d'une personne waaw nit waaw parce que nee naan artiste balaa nga koo def artiste da nga koy def nit ba pare muy Pape Demba Lam ah, ma koy sargal bu baax Papa Seyba Traoré Papa Seyba Traoré mi nekkoon metteur en scène fële ca Sorano muy suñu papa dëkk fii ci Géejawaay ñu bari sax xamuñ ne Géejawaay dëkk et que un grand dans le théâtre c'est un pionnier dans le théâtre ak ki nga xamante ni mooy papa ma samba moom it ma jaar ci moom ci lu bari mu def ci man lu bari fële ca Blaise Senghor surtout Festar mu def ci man lu bari ah, ñi nga xamante ni ñoom laa sagra papa Mamor Thioune mhm. Mamor Thioune nga xam ne festival bi chaque année moom mooy diriger les ateliers de formation ma koy sargal moom ak papa Sey euh, Doudou Sagna moom it dañ koy sargal bu baaxa baax ci festival bi Alioune Sall maire de la ville de Guédiawaye dañ koy sargal ndax deux éditions yi passé yëpp daf ci ànd ak ñun gunge ñu kon yoon la tey bu ñu def troisième édition bu nekkatul maire sax dañ koy sargal parce que li mu def ci Guédiawaye xam nañ ko te gis nañ ko et que c'est un grand un grand grand grand grand maire waaw beneen bi aussi muy ma ñëw sama yaay Rama Thiam moom it dama koy sargal ndax ñëpp sax jàpp na ni mooy sama yaay waaw mama sën dama koy sargal ah, daba sëy jama noir moom it ñoo daan ànd di demandoo arcos de Guédiawaye te daanaka moo tax ma dugg ci théâtre kon dama koy sargal ak ki nga xamante ni mooy maire Maguette Ndiaye dama koy sargal di sargal Doudou Sagna di sargal ñu bare bari bari ci festival waaw te loolu sam samedi lay am ci journée cérémonie officielle bi incha allah. waaw ayca ñu ngi lay bëggee nag daanaka nag boo xoolee euh, euh, euh, métti na trop waaye nag ñu ngi lay encouragé di la wax. yàlla na nga wér yal na nga euh, gën koo am doole di ko def macha allah yàlla defal la jàmm rek ñu kii ñu xam naa nag dañuy seeti ñeneen ñi xam naa nag temps bi bëriwul mais may ma dem seeti sama père yee nga xamante ni daanaka mooy ñoom père Ibou Fall c'est possible <laughs> mooy yoon c'est possible mais kontaan naa mais ñaata groupe nga invité ici j'ai invité plus de vingt six groupes jox leen lekk ak naan ak fu ñuy tëdd waaw ah, loger leen tey nag dugaluñ leen fenn fu dul ci ay auberge ak ay hôtel sonn nga waaw mais nag yàlla baax na ndax aar jar na ko kii ñëw di la jouer gratuitement am na lu ko jar yàlla baax na jërëjëf jaajëf di la encourager aussi et eh, gis ngeen ko tan bombe moom mi nga xamante nii moom moo organiser festival bi ak ay àndandoom mu am ci nag ki nga xamante nii mooy maire le maire Racine Talla jàppale ko may ko doole ak ministre ministre de la culture euh, may ko doole ñi nga xamante ni tamit ñooy waa Sorano tamit may ko doole indil ko pëjëm bu toll nii euh, tey du waa waa son et lumière waa son et lumière direction ñooy gérer fes nag bi chaque année ñoo ko voilà loolu dafa bokk ci ministère de la culture ah ngi noonu mi ngi noonu gars yi ñu ngi jéggalu kon mi ngi noonu